avril 2024 daf ciy bokk wala du ci bokk loole ñu bari koy xaar waaye nag ñi nga xam ne ñoo koy xaar bay boo ñu xaddi ndax altine 26 juin Macky Sall dina yëkkati ay kàddoom waaye nag ca kàddu ne Macky Sall ko yëkkati du yëy yàbbi wax ci bokk ci élection présidentielle 2024 waaw wala déet du ca wax ndax Macky Sall leneen lay Sall ci lu jëm ci wàllum dialogue national bi ak yi ci la Macky Sall yi wax lu jëm ci wàllum dafay bokk ci élection présidentielle 2024 wala du ci bokk loolee ñi nga xam ne ñooy xaar Macky wax si bay boo ñu xaddi xam ne ci weeru août ci la Macky Sall di wax ci lu jëm ci wàllu woowa maanaam Macky Sall candidature am weeru août ci lay wax bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar ci journal bi di Rewmi Quotidien ndax nee na ci weeru août woowu la ñuy lancé lu jëm ci wàllum parrainage yi yéen kaay gi di Source A ak l'Observateur ak Sud Quotidien xëy wax ci lu jëm ci wàllum dialogue national bi journal bi nee na société civile bi ñenn si ñoom ak ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar majorité présidentielle b ñoom nag nee nañu lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall kenn du ko waxtaane ci dialogue bi dañuy bàyyi conseil constitutionnel maanaam mooy tranché joxe ab dogal ba tey ci biir journal bi acteurs yi nekk ci dialogue national bi lu jëm ci wàllum code électoral bi ñu bari nag njortoon nañu ne L29 ak L30 la ñuy jéem a xool nan la ñu koy modifier waaye nag gars yi article L28 la ñu bëgg a ba pare yokk si lu jëm ci wàllum grâce présidentielle te nag loolee bu ñu ko defee Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall mën nañu seen neexle waaye nag Ousmane Sonko bu booba mën nañu koo écarter journal bi nee na ab proposition la boo xam ne waa Benno Bokk ko teg te loolee ñu teg baaxul ci Ousmane Sonko journal na ñi nga yu waa PDS ba léegi ci biir dialogue national bi ñoom li ñuy wax mooy lu jëm ci wàllum attewaat Karim Wade am na si Karim Wade Khalifa Ababacar Sall soo moytuwulee mbaadu bloqué dialogue bi journal bi de la Témoin moo xëy di ñu ko xibaar yéen kaay gi nee na en gudd gàtt daal mooy article la gars bëgg a modifier ndax article boobee bu ñu ko modifier ñi nga xam ne ràjjee woon nañ leen ci fichier électoral bi danañu mën a dellu si waaye nga xam ne moom la ci gars yi yokk mooy am grâce présidentielle yéen kaay gi du source xëy wax ci lu jëm ci atte bi ñu doon atte Sonko journal bi nee na bu ñu la àttee ba dañuy bind li nga xam ne maanaam mooy verdict bi waaye verdict boobee nga xam ne dañu ko war a bind ba léegi gars yi bind guñu ko te bu ñu ko bindee maanaam il faut ñu daal di koy notifier jébbal ko ki nga ne maanaam moom la ñu àttee ba léegi loolee amagu ci journal bi di Rewmi Quotidien ak L'Observateur xëy di ñu xibaar naan ñu plateforme F24 ñoom nag nee nañu fukki fan ak ñeent ci weeru juillet dinañu ñu fexe ba ñi koy topp ay candidat di leen di ngir ñu bañ a bokk ci élection yi loolee Macky Sall dakkal ko waaye lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature bi nga xam ne moom la ñuy laam-laamee Macky Sall génn si raxasu si ba si wecce yéen kay gi de Le yor yor Guy Marius Sagna na fulla mooy jaay Dakar jamono ji nañu pare ngir libérer Ousmane Sonko yéen kay gi de Le Point ci mu njëkk ñu fekk fa Mamour Diallo directeur bu ONAS muy nuyoonte ak Macky Sall nee nga xam ne ñoo fi nekk di wax maanaam fauteuil yu Macky Sall bi rek la ñu bëgg jamono ji moom la ñuy rogo jéeroo waaye nag loole du fi ama maanaam puusal ma toog la gaa yi bëgg waaye leer na leen ne Macky Sall liggéey na réew mi yéen kaay gi di bés bi l'info ak réew mi quotidien maître Moussa Bokar Thiam ministre bi ñu dénk wàllum communication tontu na presse bi ndax presse bu Sénégal démb dañoo bindoon ab édito waaye nag tey ji la leen ministre Moussa Bokar Thiam daal di tonto nee na xam ne na nañu ko taskatu xabaar yi guru Walfadjri ak ñaari journaliste rek la yoon dal ci seen kaw ginnaaw bi ñu feewle li nga xam ne mooy ay règle éthique ak déontologique nee na lu jëm ci wàllum liberté de la presse dañu ko war a encadrer dafa am tamit ay yamukaay ndax lu jëm ci ordre public loolee kenn wuru koo salfaañe lu soxal tamit wàllum fii privé jàmbur loolee amul kenn koo xam ne sañ ko ko jalgate moom maître Moussa Bokar Thiam nee na article 57 code de la na lu leer te dafay maanaam taskatu xabaar bi fësal wala lépp loo xam ne dafay yee fitna wala dafay wooñ nit ñi ci lu jëm ci wàllum violence wala wàllum bañeel wàllum haine ak yu si aju lu jëm ci wàllum procédure judiciaire boo xam ne ma ngi ci yoona loole nag bu ñu ko évoqué ci antenne taskatu xabaar bi dafa war a tëddee njaxanaay maanaam daal di koy traité avec neutralité avec maanute nee na journaliste bi wurta parparloo ci li nga xam ne mooy ab liggéeyam lu jëm ci wàllum télévision yi maître nee na kenn waru koo jël di ko utiliser di si def ay propagande yéen kaay gi di direct news xibaar nañu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk aéroport international Blaise Diagne jamono ji am nañu ni xam ne moom la aéroport bi doxee a ni ñu ko yoree ndax recrutement nga xam ne moom la ñuy def ca AIBD jamono ji jéggi na dayoo recrutement politique yi ci aéroport international Blaise Diagne ma ngi mel ni tulleeg male journal bi nee ni nga xam ne moom la ñuy yoree AIBD doy na waar génn xeetu doy waar goo xam ne maara détail yi journal bi nee na responsable politique yi naka bu ñu leen joxee ay société nationale seen militants yi la ñuy jël daal leen di recruter ci ba ñu ko ba léegi journal bi nee na recrutement yi bëri na fa loola liggéeykat yi nekk ci ASECNA aérien ba léegi jamono ji jotaguñ li nga xam ne mooy seeni indemnité de sécurité aérienne lu toll si juróomi weer ay arriéré journal bi de la Tribune xëy nag di laaj nee na xaalisu covid 19 bi nga xam ne moom la ñu doon wax ne ay nit ñoo ko luubal xaalis boobu anamu ak topp gi ñu leen doon topp fu mu yegg luubal gi nga xam ne moom la ñu doon wax ci ñen ñenn ñe ñi nga xam ne ñoom la ñu njort ne ñoo luubal alalu askan wi baa du ñenn si ñoom dañoo delloo waa wala déet ab laaj la boo xam ne bi moo xëy di ko laaj nee na tamit en tout cas li am ba dajale woona yéenekaay gi du l'Observateur xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum tabaski gi ñu bare bari tiit nañu see ndax ndakaaru ba léegi gisaguñu fi ay xar yéenekaay gi de Le Quotidien nee na lu jëm ci wàllu manifestation bi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi bëgg nañu ko amal 25 juin ñeenti fan avant tabaski boo muy tuule ay gàllankoor yu mag dina ko andi ci tabaski gi yéenekaay gi di sunu làmb ci xën mu njëkk ma ñu fekk fa Modou Lo nee na mbër mu nekk moo ko jaaxal ba mu des Ama Baldé ndax nee na Ama Baldé mooy mbër mi gën a yomb bëreel société nationale d'électricité bu